bële moo tàng moo la lakk mais bii bu tàng karo yi nu mu mel la. naaj bi tàng bi lay daw day daw day daw. ah li moom war nañ sàkk pexe nag moom tàng na trop. bële moo tàng moo la lakk mais bii du tàng karo yi nu mu mel la. naaj bi tàng bi lay daw day daw day daw. ah li moom war nañ sàkk pexe nag moom tàng na trop.